tey alxames ñetti fan ci weeru décembre la ñuy màggal àdduna bi wërngal këpp ba cekk bi ñu jagleel woy laago yi mooy bis bi ñu sukkandiku ngir xool nan la ñuy gën a ñoŋalee nekkinu woy laago yi fekk nañ ca Parcelles Assainies Fatou kine Dieng ñi gin koo xamee ci turu madame mbay di ab woy laago mu dellusiwaat ci ana lan moo waxal mu amee doomu jàngoro bile. am handicap muy polio dégg naa bi ma waree def vaccin bi jour boobu la sama yaram tàng ñu indiwaat ma ak ndogalu yàlla tamit li yàlla dogal kenn mënu si dara mais macha allah sama magu yàlla moo ma yar mu yar ma yar bu rafet wan ma ni damaa bokk ci société bi dama war a doon dara ëllëg macha allah ma nekk nit ko nga xam ne tamit tax na ma ñeme àdduna daal parce que li may wax chaque fois rek bu fekkee ni da nga handicapé seen kër lay ñeme balaa muy génn ci biti à chaque fois loolu laay wax loo waral nag ma sentir sama bopp ne man dama bokk ci population bi ma war a bay sama waar ci population bi. Euh, man nee naa yomb na benn côté comme li ma wax sànq rek handicapé seen kër lay amee fit parce que boo juddoo yàlla def nga nekk handicap nga nekk seen kër euh, seen waa kër soutenir la teg la fi ñu la war a teg jox la sa gëdd yow doo mën lu muy. wane sa bopp yow tamit parce que bëgg des ginnaaw man yomb na benn côté parce que dama doon dem di jàngi alxuraan école nag jànguma ko macha allah mais maa ci sant yàlla mais def naa formation alphabétisation def naa tamit ay formation yu dul jeex macha allah sama jeunesse daal mën naa ni yàquma ko wax dëgg yàlla dérangé ma daal. Madame Mbaye ab entrepreneur la waaye yamul foofu day yëngatu ci di tàkkat ay ndaw. ak di soppi meññental yi li may yëngu ci salon bi bari na femme développement la di yëngu ci di yëngu ci crochet di yëngu ci di def formation savonnerie di di def tam ay di waxtaan ak jigéen man salon bi nak ubbi naa ko ak euh, fit mm-hmm. ubbi naa ko tamit euh, en tant jigéen ubbi naa ko tamit en tant que femme développement ubbi naa ko tamit ku war a participer réew mi parce que man bu ma toogee ci salon bi pour man du ma handicapé jigéen laa comme ñëpp dama war a dóor waar comme ñëpp man loolu mooy sama objectif waaw euh, salon bi nag waa ubbi naa ko depuis 2009 ñi ma si jàppale kenn daal am na ci moom waaw ñaar am nañu ñaar ñi ma jàppale macha allah am ci si ay bailleur tamit yu def promotion yu def promettre wa yi nga xam ne promettre nañ ma mais ñëwaguñ wa mais vraiment ni mom jàppale nañ ma ci waaw euh, ku melni ni bay Dernoville machallah ku melni kumba Touré machallah ak ñeneen ak ñeneen am ñu nekk États-Unis am ñu si japp dal wa am ñu si japp am ñu ci am yene tamit wa ñu nga xam ne tamit bu ñu mu si wul fi bu ñu dem feneen tamit am naa ay client yu fidèle daal macha allah. gis naa des na waaw loolu mën naa ne si la bokk. si la bokk macha allah euh, équipement bi ma war a am dëgg-dëgg dëgg des na waaw des na moom yooyu bi doole bi mun na nekk mais ñi ngi yaakaar yàlla daal ak euh, ñi ñu mën a jàppale incha allah waa damay def euh, saabu saabu yi dama koy defar à base de bio parce que yëpp suñu gàncaxu réew lañ koy defaree. dama ciy joxe ay formation ay femmes dama ciy jox euh, formation ay handicapé dama ciy jox formation individuelle waa bu jógee foofu tam damay def micro jardinage dama koy def damay def crochet crochet moom dama ciy ràmb lu mucc ay <laughs> ndax dama ciy defar lu nga xam ne mag ñi paay bu ñu xëyee dañuy reesu ba ba ngoon loolu moom dama ko ñeme naa ko <laughs> maa ngi ko ciy liggéey macha allah waaw bu weesoo loolu dama ciy ñaw ay yére damay ñaw tamit. waaw damay ñaw parce que xam nga léegi salon mun naa ne dox na doxatul waaw doxatul trop parce que ñëpp ci dugg ñu ko mën ak ñi ko mën ñëpp ñu ngi si biir ba tax na yàlla defal nañu xéewal mu nga xam ne bu ñu buñ naan bu tëjee côté bii rek ñu ubbi beneen côté bi macha allah. salon bi yan façon salon ngay liggéey yan ak saabu yi comme ni ma ko waxee rek buy la Dakar Manta Mare macha allah. Euh, day fajj en même temps parce que tamit bu xéssal mais bokoy koy da ngay xamné day day traiter sa yaram en même temps waaw. gis nga li gars yi ngi daw si sama yi. waaw waaw sha allah mi ngi jall ba paré ñi ngi ma ci def ay demande formation daal waaw fan ñu néew incha allah war na ci joxe ben groupement kooku euh, njëriñ bu neexee yàlla. kon fi mu ne nii fu waay mën a nekk su bëggee tey fàttali ne formé ko ci wàllu savonnerie mën naa formation yi. waaw macha allah accessible na parce que lépp suñu réew lañ koy jëlee benn ñaareel bi man mi koy joxe macha allah gëm naa ne am naa ci benn laa laabire bi ba nga xam ne parce que man dama gëm ne xam-xam boo ko amee boo ko tasul amalu la njariñ waaw il faut nga tas ko pour mu mën la amal njariñ mais mën naa ci mën ñu ma ci jote jàngal ñëpp macha allah gis nañ ci seen bopp. ci atum 2010 nguur bu Sénégal dafa woote woon ci péncum ndaw réew mi ab projet de loi bi mu duppee loi d'orientation sociale ñi dëxañoon ci lëpp lu ñeel bëgg-bëgg woy laago yi waaye mu mel ni xalaat boobee daa gàll gauche bu ñu sukkandikoo ci kàddu madame Mbaye waaw carte égalité des chances yi tamit ñi ngi koy wax génnee nañ ko ñi ngi naan euh, dafa am ay bourse la ñu wax mais man mii toog day wax dëgg yàlla ak sama morom yu bare mosuñu si fayeew mosuñu si fayee téye nañ carte bi carte bi daal mën naa ne ñu benn njariñ xamuñu nag fan la kalee xamuñu si gouvernement bi la wala ci suuf la ñun daal dara leeruñu si def nañ nag suñu kémt laay kàttan enquête nañ côté bu nekk mais daal ñun daal carte bi ñu ko téye mais amaluñu benn njariñ te cinq yi léegi mu jeex waaw bëggoon nañ tamit ñu gindi ñu si benn côté daal waaw euh, li may njëkk wax foofu mooy accessibilité bi parce que fii loo nekk nekk jàmbaar boo demee ba boo demee boo demee ba si benn place par exemple ministère yi ma commencé ci palais parce que ba liggéey bi ndax ma dem naa ba palais war a benn lettre si buntu ba laa yem te loolu c'est pas normal si lañ bokk accessibilité bi surtout nañu si jàppale bu loolu weesoo këru social yi ñuy maye handicapé yi ñoo gën soxla ñun même buñ ñu ko mayul sax nañ ñu ko jox luyee ñu ko ñuy fay ñu jàppale ñu daal bu ñu puus la bëgg en fait parce que ñu ngi ci te bëgg ginnaaw seede yi xaritam bii di Maguette njaay def ak Xamatulaay Diallo Fatou Kiné Dieng madame Mbaye na ay conseil jëmale ko ci ay naataangoowam docteur yi muy nekk nekk handicap te boobu handicap dafa nekk ndax boobu li yomb ci ñun sax yombul yombul léegi bu jamono boobu dafa jafe woon ci ñun mais moom nekk mu nekk femme nekk jigéen bu jàmbaar nekk jigéen bu am jom am fulaam fay yàlla boole fii man ma def passé bi yàlla def mu am benn partenaire bu vieja de fii laa nekk mais salon baa soo su ngeen kii rek comme yow létt ngay def man moom létt laay def ba bu ma fa jógee ba léegi man moom sens bu mu am man amaguma ko ndax man damaa toog sama kër rek di létt ay client benn benn ñaar ñaar boobu ba léegi moyen moo amul pour ñi am suñu yëfu bopp mais tamit nag ñu ngi si ginnaawam te xam naa ne incha allah ñu ko jàppale bu soobee yàlla day mel ni leen jàppale loolu moom xam naa ko ci moom te am na nit ku jàmbaare nit ku am kóllëre wax dëgg yàlla wax si moom yomb na damaa mënul wax nag dégguma olof looloo tax mais suñu yéene bu ma am yéene bu ma am pour wax si moom dama koo mënul wax loolu loolu kese mooy problème bi mais amul leen amul loo xamante ne daal lu mu fi am daal mérité na ko mérité la ndax dëgg yàlla jigéenu jàmbaare te fàttali ne moom handicapé moom dérangé man de wax dëgg yàlla bi may jugee Kaolack bi ñëw fi ñemewu ma ko waaye yàlla nga ma dugal si yëf yi ndax man daanu ma sax génn waaye léegi dem naa ba sentirotuma sax ni man handicapé la waaw kon nag koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm defal leen ko yéen ko seet si yoo ko xéewal gi yoo ko di ñaan nag nit ñi ak képp ku si mën jàpp nga ñëw jàppale te ndax boo ko jàppalee rek day mel ni nit ñi nga jàppale te xam naa ne ginnaawam yaatu na xolam ba fenn te lu mu am bokk na ko ay nawle ak ay mbokkam xam nga man kon sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla fan yu bu wér kon yéen li may lancé rek euh, comme toujours euh, na parents yi dimbali handicapé yi surtout handicapé yi seen biir kër nañ leen dimbali nañ leen def comme ñëpp parce que man dama ni toujours foofu la ñu war a amee fit soo ko mën a génn ci biti ma di leen wax rek euh, handicapé handicapé moom macha allah du gàcce handicapé du gàcce de handicapé du kër yëpp lay wàcc. fu ko yàlla wàcce rek yàlla def na fa xéewal hmm. kon nañu jàppale handicapé yi soutenir leen parce que macha allah da gis handicapé yu bare gannaaw yàlla ñoo yor seen kër mais lépp fit la nag fit la ci seen kër di wax rek euh, handicapé yi nañu dem am courage nañu gëm ne yàlla jeexul yàlla lu tëj bunt tëj parentère wàccee rideau ah ah amul te handicapé moo nekk nit bu nga xam ne day ñaan léegi yàlla may ko léegi loolu yàlla moo ko def ndax ba ñu nee waay yàlla rek la ñu war a gëm suñu bopp kon nañu jëm suñu bopp te jàpp ba mu dëgër te bañ a ragal def dara lu dul lu ñaaw bu ñu ko ragal a def insha allah ci kaw si kanam gëm naa ne day baax bu neexee yàlla. tey man soxna Fass Kiné Dieng madame Samb. madame Mbaye. madame Mbaye tey madame Mbaye madame madame Mbaye. Euh. madame Mbaye sëñ bi ak foyer bi ak salon bi. Euh. handicap bi euh. est-ce que est-ce que loo loo man moom pour man méttiwul ndax macha allah yàlla daf ma boole ku woyof ku baax ku ma comprendre ku comprendre àdduna tamit parce que loolu mooy àdduna euh, dafa gëm ne dañoo war a dund ndax yàlla boole nañu méttiwul si man ndax man macha allah benn éducation bi am naa ko bu dee liggéey kër jaaxaluma bu dee liggéey salon jaaxaluma bu dee too sama borom kër it jaaxaluma loolu moom yàlla defal na ma ko kon boole ñett yi méttiwul si man déedéet wax dëgg yàlla. méttiwul te yombalal na ma ko tamit. tey lan ngay tàggoo waa télévision Safina. waaw ma leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal bu baax a baax a baax particulier sëñ Mansour macha allah di wax rek ah yal na yàlla yàggal xame bi yàlla yàggal taxawaay bi di leen wax rek euh, beneen yoon incha allah ndax euh, ñu fi te fas yéene nañ liggéey ak yéen incha allah. di leen ñaanal rek yàlla may ñu gudd fan ak wér sutura fekkee ak taw allah ci moom sallallahu alayhi wa exact fan la nekk numéro téléphone yi euh, maa ngi unité 6 si wetu case bi boo ñëwee ba rond point case bi rek boo wootee ñu jël si la sama numéro 77 la 507 67 86 salon Maodo Dabakh ku bëgg ko formé ku bëgg ku bëgg ma formé la tamit pare naa pour former macha allah mettiwul l' essentiel yow miy ñëw di def formation bi rek na nga ko bëgg mais li des yëpp amul problème incha allah si lépp loo bëgg nag mën naa la ko jàngal li ma mën incha allah. gis nga nag loolu tey kiy formé si ñëw di formé mu ci sa valeur yi la ak. non ça dépend ci nit bi lan lay jógee ñëw def parce que mën na def filière yëpp bu ko neexee su ko neexee tam mën na tànn benn filière parce que damay def saabu damay def damay def ay collier damay def salon bi salon bi moom lépp lañ fiy jàng coiffure pédicure euh, maquillage greffage yëpp dama koy def waaw. vraiment waaw 77 507 67 86. di xaar nag gouvernement bi bu baax a baax a baax heure bii daaw nag ñaanoon naa Marème Macky Sall kër ñun kër rek la ñu bëgg kër kese bu ñu amee kër rek. ñu mën a génnee li nekk suñu bopp parce que population bi waaw ñun loolu mooy suñu souhait te nag yaakaar naa ne fa ma ko waxee foofu la waxoon naa nga daaw nag samay lettre bare na lool mais nag gisaguma ci dara wax dëgg yàlla mais daal ñu ngi leen di ba tey xàddiwuñu di ñaan yàlla gudd fan ak wér. ñun nga ndokkeel wala tey la journée tey la 3 la nga di ndokkeel euh, journée handicapé bi handicapé yëpp maa ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal gudd fan ak wér. di ñaan yàlla ñu fekke ko at yu bare di ñaanal responsable yi di wax handicapé yi yokku leen seen courage yokku leen seen gëm-gëm gëm leen ne àdduna lañ nekk ndax àdduna dafa metti metti na metti bu nga xam ne yéen yéen a mën a affronter la vie kon jàpp leen ci kanam di wax aller de l'avant di courage encore une fois di courage merci beaucoup